Certes, nous la commémorons chaque année, mais chaque année recèle une signification singulière qui donne tout son éclat à cet événement. Le thème que vous avez retenu cette année, c'est pas de démocratie sans les syndicats. Euh, ceci réaffirme l'importance capitale du travail et des travailleurs dans la société. Pour ma part, je demeure à sa juste valeur, je mesure à valeur votre labeur quotidien qui a permis à notre entreprise d'enregistrer d'importants acquis au fil des années. Et dans le cadre de la mise en œuvre du PSD de 2024 à 2028, adossé par un, euh, sur un contrat de performance pour cette même période de 2024 à 2026 pour ce qui concerne le contrat de performance, plus spécifiquement en ce qui concerne le renforcement des capacités opérationnelles et du bien-être du personnel. Nous savons que ce plan permet d'avoir un outil de référence pour notre plan d'action de tous les jours de définir les voies et moyens pour lesquels notre société compte s'appuyer pour son développement harmonieux et son développement durable également. Cette aspiration se décline en une vision qui est celle d'un groupe LONASE moderne, agile, performant à l'horizon 2028. Les actions de la LONASE, axées sur les orientations du PSD, entrant en droite ligne par la politique développée par les autorités du Sénégal et se trouve en tout cas dans le fondement que la LONASE a comme slogan la fortune aux les bénéfices à la nation. Nous avons la chance à la LONASE de bénéficier d'une force de travail diversifiée, compétente, dévouée et très disponible. Cependant, la véritable force de notre collectif réside dans notre capacité à nous organiser, à nous soutenir mutuellement grâce au rôle des syndicats. Ces derniers ne sont pas seulement des organes de négociation, de revendication et de grévistes. Il s'agit d'un syndicat de protection des travailleurs. Ils sont la force de proposition, mais aussi et surtout d'action pour la bonne marche de l'entreprise. chers vaillants travailleurs, chers Lonasiens, chères familles, en ces termes, en ces temps de défi, je souhaite saluer toute votre résilience, votre engagement et votre détermination, qui sont les piliers sur lesquels repose le succès que connaît la LONAS aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu qui nous a permis de nous retrouver en cette belle journée du 1er mai pour célébrer la fête du travail. Vous avez consacré cette journée de fête qui est très importante car, chers collègues, c'est le travail qui rend la dignité humaine. Et la LONAS sait au combien il est important. Mes pensées vont à l'égard de nos disparus et nous prions pour que le bon les accueille dans son paradis céleste. Monsieur le secrétaire général de la Synthèse, Vous conviendrez avec moi que le travail est un moyen d'épanouissement pour tout être. Une fierté. Le travail, quand il est décent, permet à la personne de construire sa vie et s'émanciper et se réaliser. Ainsi, vous me donnez l'occasion non seulement de partager des moments de bonheur avec les Lonasiens, mais également de m'adresser à chacun d'entre vous pour faire un bilan de situation de l'entreprise. Je voudrais rappeler que nous avons un plan stratégique de développement pour la période 2024-2028, adossé à un contrat de performance dans les jours à venir, nous allons la feuille de route de comment la LONAS devrait se développer et être pour les employés qui sont surtout de la réalité du management inclusif dans le cadre du dialogue social entre la direction et les organisations syndicales. Ce, ce dispositif de concertation qui contribue significativement à la réussite des actions menées est bien le reflet de notre volonté commune de préserver l'image de marque que la LONAS a. Aussi, je voudrais saluer la forte contribution de tous le personnel à l'instauration d'un climat social apaisé et propice au travail préalable à la poursuite et à la réalisation de nos ambitions. La stabilité que nous vivons au sein de notre entreprise a contribué à l'accroissement de la performance de la LONAS, ce qui a facilité en partie la prise en charge des conditions des travailleurs et guide notre conduite et place, comme je l'avais dit à l'entame de mes propos en arrivant à la LONAS, on place l'humain au centre de nos préoccupations. Aujourd'hui, je puis vous dire qu'en quelques mois, avec tout le avec toute la mobilisation des travailleurs de la LONAS, nous avons réalisé un bénéfice que jamais dans l'histoire la LONAS l'a eu. En quelques mois, après avoir terminé l'audit, après avoir corrigé beaucoup d'injustices, Après avoir rééquilibré un certain nombre de choses, je puis vous dire qu'à la LONASE, nous avons pu réaliser un bénéfice de 18 milliards 220 millions bruts. Et que ce bénéfice ne pouvait pas être obtenu sans l'appui et l'accompagnement des travailleurs de tous les jours. Vous n'avez pas d'heure, vous n'avez pas de jour, vous n'avez pas de temps à part travailler pour la bonne marche de cette LONASE. Ce bénéfice est le vôtre. Et comme je le dis, c'est un bénéfice brut. Et je pense, après avoir retranché l'ensemble des charges plus euh, les impôts, nous en serons aux alentours de 12 milliards. Et qui se trouvent dans nos comptes. Parce que nous avons fait en sorte que beaucoup d'injustices s'arrêtent au sein de la LONASE. qu'on rééquilibre au maximum la balance au niveau de notre comptabilité. Et pour ça, je ne le dois qu'à vous les travailleurs. Et on a pu le réaliser en quelques mois. Ce n'est pas une prouesse du directeur général, c'est la réussite des donasiens. Et pour ça, je vous félicite et je vous encourage. 15%. c'est l'augmentation généralisée du sursalaire à hauteur de 50 000. C'est la revalorisation de la prime de prudence allouée aux chauffeurs à 100 000 francs par semestre. C'est une indemnité de fonction aux adjoints des chefs d'agence. C'est la revalorisation de l'enveloppe du CARPLAN pour les cadres à hauteur de deux millions en raison de la hausse des coûts de véhicules qu'on connaît. la création d'un comité de recrutement quinquennal des prestataires, ce qui me tient très à cœur. La création d'un comité de prise en charge médicale des retraités et des prestataires. Monsieur le DCH, je voudrais que vous matérialisez par un contrat de prestataires s'il le faut, des représentants des retraités, mais aussi des vendeurs dans une commission qui fera le suivi de l'effectivité de cette décision. Monsieur le secrétaire général, vous m'avez remis un de doléances pour l'année 2024 qui comporte six points. Je voudrais préciser que la plupart de ces points ont déjà en compte et en de la revalorisation des primes des caissiers de 55 000 à 100 000. Il sera dans la commission paritaire de Vous avez parlé de la revalorisation de prêts de véhicules des non-cadres pour à 6 millions 500. C'est du ressort de la commission paritaire. Ce sera étudié et je pense qu'avec la réalisation et du bénéfice qu'on a obtenu, ça ne Vous avez parlé de la revalorisation de la prime des chefs PLR de 55 000 à 80 000. Il s'agit également d'une compétence de la commission paritaire qui fera la proposition et je suis sûr aura l'oreille attentive du directeur général. Vous avez parlé des élargissements des bons de restauration. C'est toujours à la commission paritaire de régler la question. Vous avez parlé des conditions de travail dans toutes les structures décentralisées. Je sais que vous savez qu'aujourd'hui, que ce processus est en cours et que nous allons travailler à valoriser et à retravailler nos agences régionaux pour qu'elles soient des agences modernes qui puissent accueillir des clients Vous avez parlé de l'application immédiate du plan quinquennal de recrutement des prestataires. Je vous rappelle qu'à mon arrivée, c'est la première mesure que j'ai prise et que ça, c'est une réalité aujourd'hui à la LONAS parce que les gens sont en train de travailler. Au-delà de ceux que j'ai déjà euh, régularisés, j'ai engagé la commission des travailleurs d'arrache-pied pour qu'on nous présente rapidement, direction par direction, des possibilités de régulariser les Monsieur le secrétaire général de la synthèse du syndicat, j'espère avoir à toutes Je profite de cette occasion qui m'est offerte en ce jour de fête du travail pour renouveler toute ma confiance et vous remercier pour votre rigueur. Nous Je vous encourage à préserver pour encore atteindre, voire dépasser tous nos objectifs à bâtir pour un groupe Lonage moderne, agile, performant à l'horizon 2028. Moni, en tant porte-parole des employés représentant la coordination des délégués de la section synthèse de vous la bienvenue à mon nom de tous mes collègues. Chers collègues, cette journée à au-delà de son cachet commémoratif, est un moment opportun pour l'ensemble des travailleurs et autorités de notre structure de réfléchir sur les nouveaux enjeux de développement qui permettront à notre entreprise d'être plus compétitive et apte à s'adapter aux mutations économiques. Cela ne saurait être possible que si toutes les entités de notre structure travaillent en parfaite symbiose dans le seul but de porter le flambeau plus haut pour l'intérêt de la LONASE et de tous les travailleurs. Voilà pourquoi l'effort de tout un chacun compte pour qu'ensemble nous puissions atteindre avec brio nos objectifs, mais dans le respect des droits des travailleurs. Toutefois, dans le panorama des théories politiques contemporaines, beaucoup de spécialistes ont démontré les limites de la démocratie représentative en pointant du doigt les députés qui représentent le peuple lors de la définition des politiques publiques, comme quoi que ces derniers ne nous représentent plus, mais ils sont là-bas que pour défendre les causes de leur parti politique. Et dans les solutions proposées, l'articulation de la démocratie représentative et celle participative y occupe une place centrale. Voilà pourquoi, Monsieur le Directeur Général, chers camarades, le thème retenu pour cette année, pas de démocratie sans les syndicats, est à la une de l'actualité politique, sociale et économique. Il va en droite ligne avec notre souhait de siéger au niveau du conseil d'administration afin de nous permettre, en tant que partenaire, d'être au cœur de l'information pour mieux apprécier les décisions arrêtées et pour apporter également de façon inclusive notre pierre de l'édifice. Il est souvent dit que la démocratie repose sur la participation citoyenne et la représentation des intérêts divers de la société. Dans cette optique, je voudrais souligner l'importance des syndicats. En effet, les syndicats sont les porte-parole des travailleurs. Ils incarnent la voix collective des employés et défendre leurs droits et leurs intérêts. Sans les syndicats, il serait difficile d'imaginer une démocratie véritablement inclusive et équilibrée. Les syndicats favorisent le dialogue social et facilitent les négociations entre les employeurs et les employés pour trouver des solutions mutuellement bénéfiques. Cette collaboration constructive est essentielle pour assurer un environnement de travail harmonieux et productif. Fort heureusement pour notre société, le dialogue a été de tout temps la méthode privilégiée. Et pour preuve, nous tenons chaque année une commission paritaire consultative lors de laquelle beaucoup d'avantages ont été obtenus. L'augmentation généralisée du salaire de base à hauteur de 15%, l'augmentation généralisée du salaire à hauteur de 50 000 francs, La revalorisation de la prime de prudence allouée aux chauffeurs à 100 000 francs par semestre, une indemnité de fonction de 50 000 francs allouée aux chefs de adjoints et la revalorisation de l'enveloppe du CARPLAN pour les cadres, la création d'un comité de recrutement quinquennal des prestataires, la création de comité de la prise en charge médicale des, des, des retraités et des prestataires de services. si nous parvenons à avoir tous ces acquis, c'est parce que nous avons un syndicat debout, mais qui privilège le dialogue pour atteindre ses objectifs dans le droit et dans la légalité, mais aussi une direction générale attentive. Nous en profitons pour remercier le directeur général, M. Abdurrahman Baldé, qui, depuis son arrivée à la tête de la RONAS, s'est montré réceptif aux doléances des syndicats et a fait beaucoup d'efforts dans une volonté Cependant, malgré tous les avantages acquis jusque-là, il n'en demeure pas moins que des efforts supplémentaires doivent être faits de la section SINEX-Synthèse de cette année notamment. La revalorisation de la prime des caissiers de 55 000 à 100 000 francs, la revalorisation de l'enveloppe à 6 500 000 la revalorisation de la prime des chefs PLR de 55 000 à 80 000 francs, la mise à disposition de bons de restauration aux agents des structures déconcentrées, des conditions de travail dans les structures déconcentrées, l'application du plan quinquennal de recrutement dans les prestataires de services, les prestataires de services, pour ne citer que ces points-là. Mesdames et messieurs, Je ne saurais finir mes propos sans remercier du fond du cœur nos distingués invités qui, malgré leurs multiples occupations, ont tenu à commémorer avec nous la fête du travail. Mention spéciale à mes chers camarades et collègues délégués qui m'ont mis devant la scène, même si, sans doute, il en compte de plus expérimentés et de plus aptes à nous représenter. Je n'oublie pas les différents comités qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Permettez-moi aussi de rendre un vibrant hommage à M. Massa Mandia, qui depuis son départ de cette structure reste plus motivé et plus engagé à nous accompagner en permanence et nous prodiguant des conseils avisés pour la réussite de notre mission. Vive la vive les travailleurs, vive la synthèse Merci de euh, maa ngi leen di sant di leen gërëm sànq ba tey ay français la ñuy def bu ma sañoon lii yoon ngeen may ma ko ma def ko ci wolof ndaxte bu ñuy liggéey bu ñëpp di naan waaw góor Lonase liggéeykat Lonase. man waa góor jaaykat yi laay wax doonte benn famille bi la waaye occasion yu mel nii dañ leen di delloo njukkal di leen jaajëfee di leen remercier mais aussi di leen massaw coono tey loo leen bëgg ñun gëm nañ ni yelloo yelloo ngeen ko war nañ mën a xool ci anam yu gën a rafet ñu organiser wu davantage pour ñu dem leen mën a gunge lépp lu ñuy naan waaw góor daa fekk force de vente bi taxaw daa fekk suñuy produit mun a yegg fu ñu war a yegg waaye aussi seen vigilance ak seen gunge mën ñoo permettre ñu am résultat yi ñuy wër ah man bi may doog a ñëw discours bi ma njëkk joxe yàggoon naan naan nit ki nit ak nite moom la ñuy jiital ci dëkk la ñuy def te ba ma yegsee dama recevoir entité yëpp ba recevoir l'amicale des vendeurs mu doon discussion en tout cas waxtaan bi nga xamante ni fonk naa ko lool parce que permettre na ma ma xam lu bëree bëri bëri bëri laata may commencer sama liggéey bi ñu tàmbalee liggéey bi aussi ci ndimbalu suñu top management à sa tête secteur général ñu yëgal ma li ma yëgutoon xamal ma li ma xamutoon ci mbir yi ma njëkk cee jël ay mesures ci lu jiitu ci mesures yi mooy rajeunissement de la force de vente ngeen gungee ñu ci nangul ñu ko ba permettre à plus de deux cent cent 26 246 agents yi nekk ci écosystème mu mën a dem retraite parce que demoon nañu ko sonn te mënatuñu ñu organiser lu ñuy naan l'ingénierie sociale ren aussi bu ci yàlla àndee dinañ ko defaat te jàpp naa ni du gën a néew lu ñu defoon. mooy mën a permettre ñu bëgg a dem retraite dem retraite dans des conditions optimales gunge leen ba pare ñu yëgal leen ni LONASE du génnee seen eh, loxoom ci yéen ngir jàppale leen et directrice commerciale ak réseau bi dina ci taxaw pour que ñu organiser ko ba ñëpp ñu bëgg a dem ñu organiser seen demin ci anam yu rafet ñu waxoon ma ni seen couverture maladie dafa am en tout cas ay failles wala du mën a jàppale vendeurs yi ba ñëpp mën cee jot lépp xëyul sotti fekk naa ñi nga xamante ne ñu ngi yoon ci bopp Lonase defoon ay jéego ci jéego yooyu nag dañ leen joxoon ci ay décennies yi jàll quinze millions pour accompagner leen ci euh, seen mutuelle bi ñun ñu ñëw double liñ ci fekk mooy maanaam defaat beneen quinze millions pour seen prise en charge loolu mu doon une mesure bi nga xamante ni ci njëlbeen lañ ko jël te jàpp naa ni bu ma juumul war ngeen ci jot déjà te def nañ ko ba pare ñu ñëw it wax ma ci difficulté ni ngeen di jotee bobine yi qualité bi ak bëriwaay bi ma xam ne ah processus biñ ko tegee mën naa indi ay jafe-jafe donte LONASE mu ciy dugal loxoom ñu décider que bu ñu defee benn commande bi ñu mujjee woon def ci début d'année bu ci yàlla àndee dinañ fexe uniformiser bobine yëpp te fexe mu doon ay bobines yu am sécurité waaye lancé ci appel d'offre bu ci gën a néewle te qualité bi baax ñu dugg pour que ngeen mën a gën a gis seen bopp ci njaay bi te loolu mën naa leen yëgal ni mesure boobu jël naa ko ba pare ba yónnee nañu DCMP pour étude des cahiers de charge ak des spécifications techniques foog naa semaine bii ñu génn laa leen bind te gëm naa ni peut-être suba wala ginnaaw suba dinañ ma tontu ma lancer un appel d'offres uniformisé pour les questions de boubou te bu ci yàlla àndee dañuy anticiper chaque fois commande bi pour que ngeen bañati naan ay rupture am na wala bobi yi ñuy jox méngoowul lu ñu yor ci ay machine wala leneen ak leneen ci soutien yiñ ma wax ci PLR yi ak euh, magasin yi ñu yor loolu dinañ ko saytu parce que décision boo mënta jël impactam bu naree am incidence financière da ngeen koy saytu ba mu méngoo ak vision bi ngeen teg te bañ a yàkkal société bi nu mu doon doxee loolu tamit mën naa leen wax que dinañ ko poser en interne ak yow mi président vendeur yi ngeen mën ko di défendre ci commission bu ñuy mettre en place pour xoolaat loolu pour le relèvement du plateau médical de la mutuelle ah loolu tamit li ñu war a saytu la xool ko ak CMT directeur bi fa nekk parce que fondation bi mu ngi mayee ay matériel balaa ngay laax jaay laax lekk mooy maanaam matériel boobu ñuy mayee fu bu dee am na dans le cadre de ñuy bokkal liggéey bi am ñi ko soxla yelloo ko laata ñu koy maye ngalawaay ñu dugal ko ci ñun donc matériel am na liñ ci euh, yor actuellement ci CICES te am na li nga xamante ni tamit bu dee manqué na mën ngeen saisir fondation ñu étudier possibilité bi lu mën a ne dinañ ko def bon poursuite ingénierie sociale bi ngeen wax loolu moom ñun ñoo ko gën a bëgg parce que on peut pas mënuñu nekk ci dëkk ñi nga xamante ne nañu ay ndaw moo fi ëpp ñu am ay jafe-jafe ni ñuy rajeunir la force de vente te loolu moom dama leen ci encouragé bu baax a baax a baax a baax pour que ingénierie sociale bi nekk un point phare dans la gestion de la LONASE mais aussi dans la relation bi ñu am ak jaaykat yi revoir la politique des partenaire loolu moom mën naa leen yëgal bi ma yegsee du damaa audit fu mu nekk nii partenaires yëpp laa yónnee ay lettres dañuy re renégocier contrat yëpp xoolaat lépp luy manquement yu ñu doon def ñu dànkaafu leen ñu réglé ko buñ ko réglé woon ñu wuti beneen partenaire loolu ma leen leer wàllum lempo bi ngeen wax nag loolu du suñu compétence waaye dinañ ko yëggee ñi ko nar a parce que lépp xam nañ ne wàllum l'impôt direction général des impôts et domaines jaarale ko ci ministère ba ba ci assemblée ba ci président ñëpp a ci am wàll donc li ma mën mooy yéggee seen bataaxal ak seen bëgg-bëgg fi ñu koy waxtaanee bu ma juumul point yooyu ngeen ma fi wax ak subvention de la deuxième tranche pour la coopérative d'habitat loolu tamit lu ñuy saytu la en interne parce que wax naa ko bu LONASE di def bénéfice force de vente bay tax l'augmentation du taux à 10 pour cent bu dee depuis alternance lañ leen ko promettre nag war nañ ko gën a saytu pour que mu mën a nekk réalité pour le moment mesure transitoire bi ñu jël mooy dañoo am ay objectifs de yi ñu leen di jox au mois le mois ou par ou en tout cas par trimestre dama bëgg de manière solennelle monsieur le secrétaire général na ngeen ñu xoolal nan leen di mën a jàppale ba ñii nga xamante ni ñu ngi mën a atteindre objectif bi ba di ko euh, dépassé ci ligne dépassé ñu jox leen ci deux pour cent ba ñu étudier lu ñu mën a uniformiser mbir mi parce que ni ma leen koy waxee rek chaque mesure bu am incidence ci gestion wu entreprise du parce que mën nga nga def ko dañ koy waxtaanee calculer ko xool ban impact lay am fii à des années à venir te bu dee une promesse la dañ koy suivre incha allah donc ma mujjee ci li nga xamante ni amoon naa message pour jàllale leen ko mooy na ngeen gën a góorgóorlu ci liggéey ci jàppalante ak ci mesure yuy permetre ñu accroître suñuy objectif ñu mën ko atteindre ba dépasser ko ma profité aussi naan LONASE daanaka du wàllum jeu ak produit yi rek LONASE régulateur la am na monopole ci jeu yi waaye mooy contrôler partenaires yi lu ñu nekk di def sur le terrain mooy saytu machine à sous yi ñuy gis muy du muy am fu ne te LONASE yéegu ko mooy fexe ba benn partenaire du def la ko noonu comme di tijj ci ay wetu marché wala ci wetu école du moins ci wetu église lieu de culte wetu juma wala tamit di organiser ba jeu bi mel ni addiction maanaam nit ki ba mën ni mënatul takkaliko ak jouet bi LONASE day xeex ba ñu mën a am ce qu'on appelle un jeu responsable te yéen ñii di jaay dama leen ci ñaan ngeen bàyyi ci xel ñi ngeen di jaay ndax bokk nañ ci ñi ñu mën a jaay par rapport à leur capacité intellectuelle même parce que des déficients peuvent venir xamoo fu mu nekk di jëlee alal di néew di jouer te xam nga ni amul chance su gagner parce que c'est un déficient mineurs yi nga xamante ni ay ndaw lañu matewuñu fu ñuy taxawalee seen bopp ci yenn yi ñu nangu leen di jaay ngir def ay objectif dama bëgg qu'on soit une LONASE responsable et que yéen vendeurs yi le jeu responsable nekk suñu credo mu nekk plus une passion qu'une addiction ou un métier dama leen koy ñaan ngeen am taxawaay boobu de telle sorte que kenn ñu duñu mën a ŋàññi parce que même bu dee ñu ngi def suñu liggéey waaye yàlla xam na ni règle interne yu LONASE yor moo tax lu jéggi dayoo nekkul di am waaye yéen yéen ñooy suñuy premier ambassadeur ci discours bi ngeen di am ak ñi ngeen ko sekkal waaye it ci comportement bi ngeen di am vis-à-vis fay ñëwul ndaw ñi dama bëgg ngeen saytu bu baax a baax ñi ñëw di joué ci yéen. pour ñu bañ a pervertir toute la jeunesse ci seen bas âge rôle régulation boobu l'ONAS dama bëgg mu matee ko sëkk looloo tax fan yi ñu weesu fexewoon woon naa ba ñu saytuwaat càrtu yi nga xamante ni moo dënku l'ONAS ba ñu accroître suñu pouvoir de contrôle de régulation mais aussi ci sanction de prévention ak lutte contre le blanchiment loolu li ma soxal la bu ma yàlla dimbali yoon ba ñu réussir décret yooyu ak texte yu encadré loolu am pour man amatuma li may prouver maa ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf